ginnaaw bu ndigal li tuppee ci xalif général des mourides jëm si communauté islamique bi yëpp rawatina murid yi ngir ñu amal am njàngum alxuraan akum njàngum xasida gis nañ nag tey jii ci alxames ji nga xamante ni ci la joxe woon ndigal li murid yëpp daal dinañuy ñëw wuyu si woote boobule ñu déglu Serigne Mamor ci tëjum xaatnu bi allahumma ij'al taqwaaka saadana wa sixata bika zuxrana wa atiqaadana wa amin min aljuu'i wal xawfi bilaadana wa saa'ira almuslimin وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين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 mbokki jullit yi fi teew yëpp mbokki taalibe yi gannaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant borom tubaa di gën a di gën a sunu taalibe ci moom di ko yeesal di ko di ko di ko ki ko fi nekkal mu Cheikh Ahmadul Muntaqa Cheikh Ahmadul Muntaqa ñoo ngi lay nuyu di la li nuyu bokk yu baax yi nga xam ne ñoom nga boole loon ñu seq liggéey bi te ñoom ñëpp kenn ku nekk daf ci la war da ko tàmbalee ci ñi ma àndal liggéey bu alxuraan ji muy sëñ Basiiru Mbàkke bu Cheikh Modou Fadal ak sëñ Basiiru sëñ Abibu ak sëñ Xaadi Jaxate ñi ñu àndal ñëpp ak waa Muqaddamatul Xidma ak mboolem di aji ci jumaa ji mboolem ñu ko daan limee ak sëriñ Xamsu Mbàkke bi nga xam ni moo jiite woon njàngum xasaayit moom sëñ Sohaybu noo ngi lay nuyu yow sëriñ bu tedd bi di la xamal ni nanga ko diglee woon bëggee woon ko ni bu ci suñ kàttan àggul itam def nañ ci suñ kem kàttan ba jàpp nañ ni la nga digaloon def nañ ci luñ man bu dee wàllu alxuraan ji jumaa ji li fi teew bari na lool waaye mboolem jumaa yi ci dëkk bi ak daara yi ñu ci baree bare bari nii dëkk bi bindoo àdduna si bindoo ni moo tax ñu baree bari ña nga yem yem fa seen daara ak seeni i jumaa waaye ñu ci bare bari jokkoon nañu jokkoon nañu ñu yor liggéey bi xamul leen ni na ko diglee ñoo ngi koy defee foofu ci biir dëkk bi ak ak biti dëkk bi lépp teewul nag fii li fi war a teew lépp teew na fi bu dee wàllu xosaayit itam sëriñ xam su defe na ko na ko digle woon mboolem kuréel xasaayit yi diggal na leen kenn ku nekk fa nga nekk nga toog fa jàng fa lim yu baree baree bari def def ko ci ndigalu sëriñ bi kon sëriñ bi jàpp nañu def nañ ko ni ñu la ko digale woon noo ñaan ci barke borom Touba mi ñu nekk fi wetam la la ci taalibe bi yëpp fasal njabootu sëñ Touba bi fasal la ko ci mbokk jullit yi fasal la ko ci yal na la ko yàlla defal nu fekke nun ñëpp waaye nu nu itam muy bokki taalibe yi muy njabootu Serigne Touba gépp muy bokk jullit yëpp la nga ci fasal ci sab xol te ñëpp ñu xam ko yal na la yal yal nu ko yàlla defal ba ba mu kawee sa njort loolu dong lañ ñu nañ ko ci nañ ko ci mottali di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan nga ñàkk ñoo digal ñu yàgg jëfe seen digal tiir bu yàgg yàgg ci barkab Sëriñ Tuubaa noo ngi ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu murit ndigal jëfee moom lañ ñu xamee ba tax sax tey jii ku gis jumaa ji ni mu mel nga xam ne murit yi ñëw nañu wuyu si wooteeb xalif général bi di sëriñ Muntaxa Bachir ñuy ñaan lépp loo xamante ni jàng nañ ko fi ci ay alxuraan ak i xasida yàlla suñu borom nangul ñu ko te may ñu nawetub jàmm